Khadim Diaw euh, lan lay euh, nga xamante ne mooy tournoi FA bi fii ci euh, Sénégal ginnaaw bi équipe Sénégal yëpp perte ay finale yu toll ci bon gën gannaaw gannaaw ñu sant yàlla ñoo ngi julli Seydina Mohamed salaahu alayhi li waroon def nañ ko quoi mooy final du da nga koy c'est pour gagner quoi xam di sant yàlla en même temps tamit di sant tamit suñu coach yi en même temps di sant aussi. conseil ñu yi quoi parce que coach lépp ñoom la quoi parce que euh, li ñu bëggoon ñun def ko essayer def le tout pour gagner finale boobu noonu daanaka ñëwagul mais bon dañuy patienter xam nga en même temps tamit parce que match boobu tamit dañuy dem def le tout pour gagner ko du match boo xam ne du yomb quoi xam nga mais def le tout pour gagner ko en même temps ñun ñëpp euh, am nañu suñu entre nañu suñu conscience tranquille pour préparer match bi xam nga. Uh,